donc clairement euh, di wax ne justice amul ci Sénégal loolu c'est un faux débat. xam nga ñoom c'est le faux ah, prétexte. nee nañu la pression. ba présidentielle 2024 maanaam dañuy commencé démb ak tey duñ ko arrêté. waaw dañ koy continuer léegi yéen yéen yéen yéen war a rendre compte ëllëg sénégalais yi. est-ce que amu leen lu ngeen war a def loo xam ne. vraiment yëf yi dina mën a lu ñuy def mooy permettre Sénégal mu mun a dox correctement lu ñu nangu aussi. ñu déstabiliser réew mi. est-ce que c'est pas ça le problème ce discours guerrier. non duñu nangu ñu loolu mënu amul diplomatiquement nuñ ko mën a. en tout cas bu ñu ko defulee bu nu bu nu nu bu nu nangool li lii donc cela veut dire ñun mérité wuñ place bu ñu teg on le mérite pas parce que bu ñu joxee confiance nañu ñun la ñu wóolu pour ñu gérer réew mi mhm. ñu mën a permettre yan yi ñuy braver la loi.

ay gatsa gatsa du ñun ñoo wax ne dinañ la euh, def ni ni ñu def euh, ñi nga euh, Samuel Doe du ñun ñoo wax tous ces termes yi nga xamante ne violence la ñu gis vraiment vis-à-vis de yenn acteurs politiques rawatina kenn ki nga xamante ne franchement tey mën naa ne moom moo moom moo rompre avec lépp li nga xam ne dafa nekk une opposition démocratique Euh, moom bu gëmee ne euh, démocratie moom moo lay jox nguur euh, carte moom moo lay jox nguur ni muy doxalee en tout cas wanewul wanewul loolu. qu'entendez-vous par dafa romb opposition démocratique. maanaam il veut aller au pouvoir par d'autres moyens. par d'autres moyens loolu rek man laa gis te loolu ban conclusion boobu rek laa mën def parce que gisuma benn act bu muy posé buy wane ne kii kat dafa bëgg a egsi au pouvoir par la voie démocratique. tous les jours su génnee meeting public li muy wax violence su génnee meeting public li muy wax armée c'est la première fois may gis un opposant qui fait appel à l'armée mm-hmm. ñu ngi koy door a gis am na loo xamante ne franchement il faut que euh, ñu ñu delluwaat dellusiwaat xel yi mais nag fii état moo ëpp responsabilité c'est vrai dañuy politique ku ne am nga droit am am ambition mm-hmm. mais clairement responsabilité bi ëpp ci état bi la nekk état bi ñun la Sénégalais yi wóolu il faut que ba dernier jour suñu mandat ñu assurer la loi dans ce pays ñu assurer la sécurité dans ce pays jusqu'au dernier jour. mais a loolu amul luñ ciy. amul luñ ciy ragal. amul loo xamante ne dañ koy dañ ko ciy négocier. mais li ma bëgg a wax mooy est-ce que yéen.